moo dit euh, Pastef euh, Mom si euh, Pastef dans chaque bureau de vote Pastef en représentant s'il y a un problème son rôle est de le signaler au président du centre Madame bureau bureau bu justement ben ko mandataire sous amee coow nga mandataire da dem signaler li nga xamné que modi président bi le taux de participation batay tey li nga xamné que modi 20 pour cent loolu nag euh, nekkul dara loo positif na encore une fois pourtant jamais les élections législatives ont atteint les taux de participation d'une présidentielle Euh, si on atteint 50% de participation, je pense que ce sera un record par rapport aux dernières euh, élections. De ce que je vois, il est bien possible. Japonais, Tamfi, Basilina modi Maurice Kamtout, Inch'Allah. Euh, mu neen euh, amal li nga xam ne moo di euh, record bi mu neen ko daal di battre ñu daal di delluwaat foofu sa diwaanu li nga xam ne moo di Padoa fekkaat fa ki nga xam ne moo di Ali du ñàkk itam meek ba tey ay responsable politique si boobu di nga xam ne moo di gox.

13h10 euh, le nombre de votants est euh, 192 sur 696. alors 696 personnes ont voté mais bureau de vote bi dit que 192 exactement. Il y a Le aussi euh, centre lycée le bureau de vote 7 le taux de participation est c'est 42% à midi 54 euh, euh, minutes. alors euh, bataille ici, département bu commune Didier Tiaraïkaou, centre de Khalifa Babakarsi, karsi bureau de vote numéro 2 actuellement nous ici si 166 votants sur 669 inscrits ñu dem Sali euh, Portidal, euh, centre de vote euh, Sali Calfour, 5 bureau de vote numéro 1, Mingwon, Sidina Naranek, Modi, 685 inscrits, nombre de votants est de 191. Force de nous connaissent 608 inscrits, 100 votants, taux, de participation, bien aussi 17%. Euh, région Bouturbel, département Bouturbel, commune Bouturbel, Diourbel suñ koy centres centre de vote euh, Boutouba Niarim, Ndiarème mm, euh, bureau numéro un bi toll na Maudit

nombre d'inscrits c'est na si euh, nombre de votants toll na si li nga xam nekk 145 euh, donc euh, loolu mooy li nga xam nekk moo di tendance yi foofu si diwaanu li nga xam nekk Nice bureau de vote numéro 1 618 inscrits 53 ans, fa daal voté bureau de vote numéro 2 77 ñoom ñoo voté centre Ibrahim Jacques Gay de Thiès Ouest euh, nombre de votants est 687, nombre d'électeurs euh, est 5236 taux de participation est euh, 15,03%. tout à l'heure tout de suite nous retrouvons nos équipes sur place fof ci diwaanu li nga xamné ne que moo di Grand medine pour justifier exactement taux de participation yi nga xamni tam ni ñu ngi commencé diko ko di gis euh, japp nañu Touba aussi remporté nako ko alors ñu daal di doon foofu si diwaanu Grand medine euh, Ali euh, dafa am lu bees si li nga xamné ne que moo di mbir ñu lay nuyu bu baax baax baax baax lan lañ daal di mëna japp mën a jàpp. ok waaw ñëw doxal ba léegi gaa ngi ko génn gaa ngi bote mais luñ ko gis bu nekk pour l'instant affaire yi xaw na mu ngi buuse daal gaa ngi xaw a ñëw

Euh, tey ñëw nga amal nga sa droit civique exactement foo si daanu ko Grand Médine. Mhm. naka ni daal di jàngatee dina xam ne que moo di situation bi tey jii est-ce que lépp yem na foofu foofu pour daal di amal dina xam ne que moo di wat bi. waaw situation bi alhamdulilah. Hmm. dans l'ensemble ça va gis nañ nag peut-être waa les enseignants la souvent dañuy nekk di jouer di si si bu ñuy tànn quoi dañuy favoriser ñoom peut-être suñu ànd quoi. Hmm. mais loolu moom dénoncé woon nañ ko fii mais à part ça sinon nit ñaa ngi def lu ñu war a def quoi. Hmm. citoyen yi ñu ngi ñëw. Hmm. vraiment ñu def seen vote après dem ñibbi. alors euh, euh, nga nekk si takku wallu allo. waaw maa alors Youssoufa nga nekk si takku wallu est que tey jii ak faible euh, taux de participation bi xawu leen tiital concrètement non non loolu dañ ciy sant yàlla bu baax. Hmm. parce que tey xam nga le maire de Dakar Barthélémy Dias ñun nous sommes en intercoalition donc tey sàmm sa kàddu la ñuy voté ici à Dakar. donc booy xool takk wallu ñun jàmm ak njariñ ñun yëpp ñoo ngi ci ginnaaw. Hmm. te li am solo mooy ñu fexe ak nos militants ak sympathisants yi nga xam ne ñoo war a voté ñu fexe ñoom ñëw voté te ñoom hmm. tam vraiment ñu ngi lu di ñëw def seen participation. Ah, alors jërëjëf merci beaucoup lay jaajëfal bu baax a baax a baax a baax jaajëf.

waaw avant tout vraiment. de participation pour mais vraiment vraiment hmm. euh, peut-être euh, dans l'après-midi incha dina merci beaucoup Baba waaw waaw d'habitude élection Sénégal noonu la demee matin daal ñu ci bëri dañuy xëy nekk seen activité hmm. des mais non fekk ngoon daal na peut-être élection bi dina ñëw bu des bu ko defee ñu def nii daal kan moo war a mën a remporter les élections incha allah daal hmm. vraiment taux de participation yi faible na trop trop trop trop trop ko yaakaaree woon alors merci beaucoup Baba ñu lay jaajëfal bu baax baax baax alors Ali euh, ñu lay jaajëfal si kanam tuuti incha allah di leen daal dikkaat si yow si nu mu gën a yaatoo

mais voilà nous avons quelques de participation département à 12 heures nous avons les départements département de euh, ñu 25% euh, euh, ci département heures jot Goudiri mi Bakel mi ngi ci Goudomp bi moom autant autant pour moi à douze heures euh, Vélingara mi ngi woon ci vingt deux vingt deux pour cent aussi mi ngi woon ci vingt six virgule quarante quatre pour cent euh, département Pikine mi ngi nekkoon ci dix neuf pour cent loolu moo amoon ci bi douze heures jotee léegi ñu xaar euh, entendre yeneen. département yi ak yeneen tendance yi ba xam lan lay ba xam nit ñi instant bi pour le moment yaakaar naa ni war nañu yeewu ba jël seen petit déjeuner pour mun a. dem <laughs> accomplir li nga xam seen seen seen devoir il est de vingt neuf minutes yaakaar naa au moins sax dina am ñoo xam si euh, dina mën nañoo añ ba pare xam naa daal bu ñu añee pare ci la kii ñu xool ba xam ne exactement ak euh, législative deux mille vingt deux yi nga xam ne moo loolu na ci quarante six pour cent ñu xool ba xam exactement ba xam soit euh, dina yegg dina yegg niveau boobu noonu. wala dina ko dépasser au moins exactement ñu dem fekk si euh, waat foofu si daanu li nga xam ne moo di Grand Médine ak d' autres euh, interventions alors.